adversaire am kon bii bu ñu ko joxee favori foog naa j'espère que ne xalaatul sax du daanu sax si piège boobu nit nag mëninam kenn du ko xeeb ndax Siteu am na ñaar wala ñett yoo xamante ne mën na ko andi si biir làmb ji te. ku te surtout ku tenir la de waaw tenir mais lii lag de guerre du Modou Lo Modou dafa saay-saay te Modou li muy def si làmb maanaam bu waree avancer sax calculer na ko. ku jafee bëre mooy Modou Lo Siteu nag gis nañ ko mu respecté combat bi entraîné na jox na ko gëdd te préparé na Modou Lo préparé wul journée bi de mais Modou Lo la préparé te ñu bëri dañ doon préparé journée bi di bàyyi Modou Modou chaque jour ki nga xamante ne Modou ñi muy sonal dëgg mooy ñi préparé journée bi ku ci mel ni Ama Baldé dafa préparé woon journée bi préparé wul Modou ku ci mel ni Boy Niang daa préparé bi préparé wul Modou Lo préparé journée bi nag boo ko déggee mooy coow li topp engouement bi coow bi dama koy coob dama koy lekk dama koy ri mais si de préparé wul journée bi dafa préparé Modou. Modou Lo la préparé. waaw da koo jërëm mu lëlu mu jëral ko mu ne bonne presse am di ko defee fii. jërëjëf jonwaar la koy waaw da ko décentraliser mais Modou jinne la. Modou la. jinne la daal. moo Lo day bëre ba ci yàgg mu naan ko kii jinne jinne la. waaw xam nga Siteu ba muy soog a débuté day ñëwoon du dem du mbër doole xëju si yaram bi mu màgg ba yegg fii foog naa ñoom ñaar dañoo boo dañoo bokk si loolu Modou Lo dem dañ doon wax. dina lekk wërsëgam waaye du doon champion parce que daa tuuti ko ñaar bu ñu dalee da jàppal na ñaari feer yi dalante la xëy na nag feer feer douze ak feer huit. mais Modou tey Siteu boo ko doon conseillé an loo koy conseillé bu ñëwee ndax Siteu ay mbokkam nee nañ ko bul xeex ak Modou Lo te bëri bi si Modou Lo. Siteu li ma koy conseillé bu ma ko conseillé wul sax xam naa loolu lay bëre si saaku yi lay bëre du bëre mukk si digg bi. Siteu xelam xelam mayu ko mu bëree si digg géew bi yàlla xam ne xelam mayu ko mu de bu bëree si digg géew bi day day gën a gaaw si si lakk bi lay bëree. ah mën na mën na parce que Modou Lo Siteu parce que Modou Lo daan la si la par avertissement wala nga niroog Modou Lo moom ndamam la moo na bëri na bëri si langue langue bi bu mu bañ ba am cinq avertissement ñu yëg di loxo Modou Lo mu dem parce que moom foofu la toll négocier combat mais bu dëggalee boppam. ne damaa bëgg daan Modou keroog jàmm gën. dina ko mën parce que koo jël avance am rek am nga loo yaakaar ci moom pour daan ko waaye lu may bet lay doon si làmb Boy Niang aller retour moog Siteu bu ñu bëree woon sama million si Boy Niang laa koy teg aller retour Ama Baldé bu ñu ko tegoon di bëre ak ak Siteu si Ama laay teg kon wax bu yegg dafa ko moom li ma lay wax mooy ah Modou Lo la. te doomu jinne jinne la Siteu daal boobu yee dégg-dégg jàmbaar la gaynde la respecté na combat bi maanaam jaay na komba bi mais na gën a respecté ku muy bëreel te combat bi na bëree si lagg bi bés bu bëree si digg géew bi laam dina gaaw torop dina gaaw parce que xeex parce que xeexu Modou Lo kenn ko mënta calculer xeex bi boo xoolee li mu li ëmb seen li mu xeex ak li mu xeex ak euh, Boy ak li mu xeex ak Ama Baldé billaay amul benn bu ci niroo benn bokk ci te léeg-léeg bu ko neexee li mu jàng da koy teg fee andi la xeexum bedd jàmbaar la nañ ko nangul jàmbaar la c'est le roi des arènes muy buur. combat sogo ngi ñëw combat gladiateur ci diggante Boy Niang ak Reug kooku la Don King Junior de Don King moo koy woote le premier janvier nee naa la Makan Mbeng kenn du moom maa ngi koy ziar bu baax moom sama waaj man mooy sama ndomba wan sama numéro kookoy bëre jinne ñaar ñu man dama comprendre ñoom ñaar moom maanaam mais Reug Reug na def attention Boy Niang mën na bëre de Boy Niang c'est que day day day compter day calculer maanaam ni ma la ko a misaalee mooy tey ji bu ñu doon bu ñu doon wër ñi nga xamante ne ñooy kraagu lamb yi Boy ñaar duñ ko jógee parce que lu muy def da koy calculer ba ba muy jëlee tàng Modou Lo daa calculer mais daa mais Modou la kenn lu mu doon Boy Niang day calculer te gis na Reug Reug li mu foog. nekkul ci bo nekkul ci Boy Niang dafa foog ne moo mun Boy Niang fuuf mënu ko de na tey rek laa mu jël su ma ko doon teg 60 60 laa koy def 50 kii day am 60 kii am 50. kan mooy am 60. Boy Niang laa jox 60 jox Reug Reug 50. foo ko teg gis nga Boy Niang Reug Reug li mu def ci àll bi li mu def ci mbapat senegal Reug Reug li mu def ci MMA nga di ma ko joxoon tey. ak biir lamb du benn ah. waaw Reug Reug buy jëli ji. day xaaj ci digg bi sa très rare muy jël si suuf mu Reug Reug du jël ci suuf. day benn benn bëri. maa si digg bi day xaaj maanaam lu mu lay jël rek si ndigg la lay jëlee c'est très rare jëlee si suuf te Boy Niang boo koy jëlee ji si ndigg te kawtewul Boy Niang xanaa mu kawute ko bu ko wul mu dew jëlee ji ko si ndigg wallaay wallaay saa yi dina ko daan te du comprendre. man maa gis ki nga xam ne moom mooy Boy ñaa benn mbër moo ko songu ci àddina daan ko muy ama neex te gis naa Reug Reug mbër muy songul. booy ñaar làmboom ku ko songu def na la lu bon ba nga ñibbi nga doo ko xam ne def na la def na la lim lay def te rëg-rëg day song da maa fekk si waa si li ma waxoon moom laa la ma ne la day songee digg day xaaj ngelawaay bu demee ba di ko def na ko kawte ba xam ne xelam nekkatu fi mais bés bu ko kawtewul mu daw jëliñu ko bu boobaa bu daanoo bu mu jooy bu mu jooy bu mu wax kenn dara moo daan boppam combat mënut a ñàkk xeex boo ñaa bu song jee rëg-rëg te xeexul ak rëg mun na am lu ko bett si làmb ji làmb yooyu foog mu am foog mu am bagaar ba pare bëre soog a am. daa mel ni rëg ak ki nga xam ne mooy franc dañoo xaw a bokk ni ñuy bëree bëre benn benn la ñu bëree bu ñu jàppul ngemb du ñu bëree. mais franc moo gën a assuré maanaam bëre laa wax franc moo ci gën a assuré. waxoo waxu far. non non déedéet. man du ma du man dépassé naa fu may faree mbër sama écrit laa faral mais dama la bëgg a xamal benn dama le bëgg a xamal ne franc moo gën a assuré nu Fra buy jëli ji day jëli jëli bu wóor te loxo bi am na toogee fu mu dóor day def maanaam nit mu la dàq bëre yow nga dàq ko daan mu ngi mel ne jour mën na dàq football nga dàq ko dugal. ayca mu ngi noonu su lay gaynde ayca su lay gaynde grand combat baa ngi su lay gaynde ak imposé ñoom ñaar ña koy dóorante. ñu ngay dóorante imposé ba jël kaawoo su lay gayndee ngay dóor dóor ko mu daanu jogaat na fàq na ko fàq na ko la ilaha illallah su lay gayndee waaw waaw la dalay daan dalay daan Souley Gaynde mbër la. Ah, na bëri na bëri na Souley Gaynde la mu xeex la andi rek xeex bu soti mais ba ma demee ba xam ne kii nekkatu fi da koo bëreloo. daa jël coup kaaw. waaw moo tax mu wiite ko rek da wër ko ndombo bañ mu jóg mais boo bëggee dégg-dégg daal bëri na bëri jinne ndaanaan la nag. ndaanaan la kay. mais yi dañ jàngi jiwaat xeex man li ma fi gis nii li ma fi xeex kese la billaay xeex kese la te xeex wóorul fayaguñ leen lu ñu xeexee dañ leen fay pour ñuy bëre nañuy bëree te am na ñetti kaawo bii mooy ñetteel koo kaawo bi amaana ñaari door mu daanoon la bii moom dañ ko dóor rek ba nekkatu fi ñu daan dóor ba nekkatu fi mu yeggale action la demee nag laay la na yow moom noo def ma boolee laax anta anta jàppal kuy ah, mooy moom mooy ku wóor ki biir parcelle kan mooy anta jàppal mooy ki nekk biir parcelle di jàppale Pape Diop kan mooy anta jàppal coalition jàppoo jàppoo la nekk kan mooy Anta Jàppal kooku ay Anta Jàppal bi nga xamante ne képp kuy dund làmb mën na laa jàppale. laa ilaaha illallaah waaw. kookoy Anta Jàppal. waaw damaa bëgg na kooku moom. Ah. faaw ma am nu ma boole laax moom mu am nu mu def ak yow. Ah, loolu de dafa war a gaaw Anta Jàppal damay dégg sa tur. Anta Jàppal mooy ki nga xamante ne nii. waaw chaque le 17 avril xaw ma. day dem day dugg day dugg si àll ba di jàppale prison prisonniers yi. looy wax ni. moo tax it pris ñi nga xamante ne ancien prisonniers lañ génn ñoo koy jàppale nii. koy jàppale te Sénégal dañoo war a bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi. waaw dañoo war a bàyyi xel parce que lu wax ñu war leen bàyyi xel mooy ñi nga xamante ne nii ñun saa ñu yeewoo suñ benn tànk mu ngi ci biir suñ mu ngi ci biti.